asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaare ñu ñëwaat ak yéen ci naafi la bés bi muy vingt cinquième nuit bi maanaam guddik ñaar fukkeel gi ak juróom la tey mi ngi nekk huit raka maanaam juróom-ñetti raka raka bu si nekk fatiha benn yoon qul huwallahu ahad ñeenti yoon naafila vingt cinquième nuit bi mi ngi nekk juróom-ñetti bu si nekk fatiha benn yoon qul huwallahu ñeenti yoon wax na ni képp ku ko def dina la jéggal say bakar bala ngay jóge fa ko doon defee te dina la musal ci mbooleem mbugal kon naafile yi ñi ngi koy jëlee ci téere seen soyo bu mbàkk bi ñuy woowee xoratul ayni képp ku si bëgg yeneen ni leeral description vidéo bi dina la defal lien telegram pour nga mën a am téere boobu kon ñi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal ko jàmm jërë ngeen jëf